naturel du lait. Pour un quotidien rempli de bonheur et de douceur. C'est Nico. Orange Money. Orange Monnaie. Tous les moyens sont bons pour ah. boire du thé Floria. Floria, Royal Horizon Baobab, fil free, Téléphone 33 939 71 71. Adresse Route des Hôtels, Saumon. Alors vous les nouveaux bacheliers N'hésitez surtout pas à choisir UKO ISG Saint-Michel pour votre projet professionnel et faire éclore vos talents. Oh Royal, Burundori. Momo Fashion, Mouchei, M60 Collection, Fatishop Prestige. Ah, Jaina, ça va Kiné Ça va. Euh, Fabi, nous avons épreuve. Lors de dissertation ou le commentaire euh, Dissertation, sujet 1. Moi, tu connais très tard. Oui, c'était avant. Fabi, man, yow lay waxal noko traité pourtant la problématique elle était pas eh, si complexe Fabi c'est complexe là Yo, beaucoup de. deug de quoi Jaina xolal nga bal ah moom bu la waxee li mu def day am lu muy changé waat si affaire yi wala nu mu demee wala da ngay dem corriger effacer bindaat ins bi kay bay woy na mbuus li si des moom focus sur la reste kese. oh my dama wax ak yow. vraiment. est-ce nga dégg sa tur wala da nga bëgg ñu kaasi affaire saafare bi doon xeeñ seen classe ba élève yëpp ko coow. Hmm. approchez, approchez, approchez. Madame... approche mon gars, approche. Bon, vous leen tiit c'est juste pour ngeen tàmm d'ici un mois xam ngeen un di xaar voilà léegi parlons si suñu yendu de bi demain entre amis d'école organiser une benn pour demain xam euh, gérer une cotisation et gérer une villa piscine le loolu gérer nañ ko. exactement service traiteur bien. en tout cas tout ce qui est organisation gérer nañ ko ce que euh, nag suñ ko c'est juste pour décompresser histoire de nous préparer et préviser. sinon avec euh, anticiper bi j'espère que fàttali euh, Tapping and flip. C'est cool. Merci beaucoup. Mais aussi une chose, demain si yandu bi lépp lu jëm ci wàllum philo beeg épreuve yi ngeen téye ko côté bëgguma ko dégg ñu ñëw ambiance def lu neex c'est bon. pour euh, cotisation yi voilà Gori yi ñoom ñoo cotiser ñun góor yi jigéen ñi nag elles sont invitées waaye léegi mais malheureusement heureusement ñun ñëpp ñoo mën a ñëw voilà on est limité dans la villa donc. Euh, j'étais obligé de faire un choix. J'ai fait un choix. li si bàyyi nii képp ku sa tur nekk jàppal ne si si bis bi nga bokk ku se tur nekkul nak, jàppal ne bokkoo ci bis bi Na naa ko ñëw affiché léegi au niveau du tableau après vous saurez ngeen baye xel leen nak. bëgg naa boo di ñëw ngeen taral bis bi def dara ci xew mi sañse lu bien La chemise d'été duma ko bañ boole ma laala lay sos du ko bañ gars yi mhm. fattal leen ma fépp yaa ngeen jëf wàññi seytaane loo xam si góor bu ñàkk fayda indi teg teg si fii parapaj nag ñii leen da xam naa ko jëy naa suñ ma invité sax man maa demul soof nañu amee nañ école bi lu mu ñëw ñu aaki moo ko wuy ma Emma moom ni muy manqué indigne kii mënuma ci moom dara. uteeg Cheikh am bële de kii est-ce seen yaay jaawalewu leen hôpital bi. billaay juumoo de ñii comme ni ñu kii xoola aana kenn du wax lépp waaye bu ubbi woon kanamam bi tuuti nit ñi ñeme ko ba koy wax sax kooku bu gën a ndaw kenn du ko gën. bon gars yi nii euh, kat bon yow moom doo koy qui est bi te admis d'office si yenn avec mention spéciale. <laughs> ok merci ah. mais yan critères ngeen teg pour faire vos choix. rafet toi, mol, saf ner, am caaj ak flow loolu moom kenn waxale ok mais tu sais très bien que les ségrégations là et que xam nga ne ñii dina am ñu la si affaire là nous on a su. J'espère bien que vous euh, Je viendrai, Inch'Allah, mais à une seule et unique condition. C'est quoi Je viens avec mon mec. Cathy, Je sais que l'idée est venue. Et je ne peux pas me faire de gêner. Est-ce que... Apprendre ou à laisser D'accord. Il n'y a pas de souci. Mais vous suite même. D'accord. Eh ben, c'est bon. Fabi, né? Tá Pinky. Kinne. Jay, van mijn fijne lisse lagers vierde. Wow. Ki xamul boppam de buñ ko nee meral lu muy mel muy mel ni ruuxu noonu tërëpiyee rek la may saf een ak guddaayam. eh da ngay def. Dieye bëgguma ku ma jaxasee waa école bi su ma demoon dañuy wax ki ne dafa yëg boppam. ok bëggoo ko la jaxasee ak waa école bi mais nangoo ko la jaxase ak man te gis nga nu ñu mel ngay seetaan ñu lay invité di ma bàyyi. waa Dieye soo dem man dewoon kan mooy indi là j'ai tout compris Il y a rien Mon âme reste rester livre voilà voilà deux secondes on fait quoi pour les Yendo on est en tête de liste franchement Yendo bi show ma le fait qu'il m'ait mis sur le risque là ça me plaît pas du tout Mon âme ma umba duma en En En fait, c'est woo dem la non je n'y pense même pas mais bon si tu veux y aller tu peux y aller hein ah, parce que tu penses que j'attends ton accord. d'accord. changer les idées. Vas-y, madame. Non, mais vas-y. Charlotte, c'est à cette heure que tu viens Je suis désolé, hein. franchement. Vas-y, c'est comme chez toi. Vous avez déjà commencé Ah, ça, ouais. te de Eh ben, on va tout reprendre, hein. Mec, quoi. Mec, lol. Comme il veut tout recommencer, laisse tout recommencer. Bon, commençons par Histo-Géo. Histoire-géographie Non on peut pas commencer par histoire géo. Si on s'est regroupé, c'est pour faire les matières scientifiques, maths, PC and stuff. Tu peux pas venir et nous imposer des leçons. Ce n'est que le non ah, mais si c'est maths aussi, je préfère rester chez moi. Ah non C'est bon, c'est bon, arrêtez. C'est simple. Si on révise ensemble, c'est pourquoi Parce que toi, cher, tu peux aider. Ah, ah peut aider, cher. Il a des problèmes de mémorisation. On va réviser les cours. Il a des problèmes de mémorisation, on va réviser les cours. Mais d'abord, on va faire les exercices

J'ai cherché l'amour sans arrêt, tellement, oui, tellement d'années. Mais émotionnellement, j'étais grave torturé. Quand, quand on s'est vu dans ma peur, j'étais condamné en vrai. Mon cœur, il était en paix. Je sais que sur toi, je pourrais compter quand je vais mourir. Que si déjà tu seras là pour me courir. Que quand je tomberai, tu seras là pour me soutenir la seule personne qui me fait vivre. Et c'est pas faux ce que je vois, je sais que tu me regardes, je ressens. L'amour que tu me portes, et c'est ce qui me fait penser que je pourrais vraiment compter sur toi pour le ménage et pour la cuisine. Quand je te dirai, heureux ménage. Et nos enfants auront une éducation dans tes bras que je pourrais dormir sereinement la nuit sans penser à ce qu'ils deviendront plus tard et dans l'avenir. Car

ndekete xanaa kamu ni urus baax na waaye ngalam baax na bu urus warna ni ku jël ngalam do perte nga iya ni ma kati sama chéri semua itu tukkee yang yow andal àndal dia du yow xale yi andal ci naan لا لو يقول لو الجرو سخلا ساري بقى تقول ايه مك ما سمعي كان مخرج ترى خلنا لا دفاع خلنا لا مو دقيقة على خارو مكون انتوكا تبنالي واتي ميربي تبنالي <laughs> وي جوستي جوستي هذا فمون فمون كريب كاتي Donc c'est la classe.

ma dama la fan quoi. parce que yaay doxaan gel bi gën a mooy si école bi nga baal ma nga baal ma genre sans gêne sans complexe. yaa ngi jaay ay càkk si école bi ay fondé ay zombie et tu l'assumes <laughs> vraiment cool bu bu nga maa fan rek nga wax. Eh, man amul benn problème ma bic bi ma <laughs> <laughs> gis naa la tamit yow da nga sañse. non sañse moom sama yëf la moom. la. boy yow rek décor nga yaa ngi mel ni manque yi xool fépp laa mune fépp laa mëne mon ami fépp laa mëne mais Cheikh toi même boudé tégo sax sois à l'aise waxal loo bëgg ma defal xamal la gum la ci mille pizza yi tanda yow boy sen dépense kër ñaata la 5000 mille ni sen fukki fanu dépense kër la tek ci table bi j'ai mis bal 50000 la tek ah ok wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg nga dëgg mais xam nga bi ni sax Idi Idi edi sama boy la képp kuy góor yàlla fii si soirée bi moom moo tolli sa cotisation seen dépense ko ñaata la. tuutaw tuutaw <laughs> seen dépense su at la ba bi teg si table bi ki ko mën a jëm bokkul dool joxul jàmm bay c'est toi xamal laa le jus. baax na lan la xoolee. noo def ba gis ma. Yo lan la. non du dara c'est juste que j'ai envie de rester ici sinon kontaan naa trop si gis la na mon na la. mais yow kan moo fait nga que ni ku ma Toch. chut tu sais bien que tu es ma meilleure amie te te créer des problèmes c'est la dernière des choses que je veux Et ngi dégg bëgguma yow ak Tosh, tu am un problème muy jóge ci man en plus tu xam nga ne il est au courant que j'ai eu des sentiments ci yow. mes sentiments yooyu passé depuis 9 mois et entre temps j'ai gagné un très bon ami. kat yi loolu du góor yëpp ñoo ko mën comprendre. et su ma bëggee dëgg dina ko jéem comprendre. 17 يقول قبل سيري بخاطي yow koy seet ki ne lan moo sa yoon ci kan laay seet ak sama yére yu xotteeku ak lan nga may lijjantee ki mana man dama laa tàggu da ngaa dégg man la kinde njaay man kii laay seet yow ya, udah ma doon mënoo maandu ñu di feetu ngay nekk fi di ay cas di lijjante vie privée jàmbur yow mënoo maandu ngir yàlla

Man, j'ai vécu des moments très difficiles dans ma vie. Et tu as toujours été là, de me soutenir, de me conseiller. Je tiens à notre amitié. kii mënul bàyyi ci affaire enfantillage yi wala bu fi jéem a créer scandale wala nit ñi ni ñuy xoolee. kati xam nga la yow sa bopp yaa ma bëgg ridiculiser te loolu man bu ma ko nangu te bu fekkee bëggoo benn coono nga bàyyi ma dem dès maintenant yaa ngi may dégg. sa tànk bi bu fekkee see beneen bi xamal ne man ak yow jeex na xamal la Tache mënatuma continuer di supporter sa enfantillage ana góor ak caprice. li nga bëggoon. ah li nga bëggoon kati xam nga lu ma lay xamal man du ma ñàkk ba pare boole ci ñàkk fayda yaa ngi may dégg te bu fekkee bëgg nga jàmm nga wàññeeku nga dem ngeen yeggale seen dialogue entre borom xaalis yaa ngi may dégg. li ma doon wax nii yëpp dëgg la espèce de complexe te gis nga kii ngay wax su ma nekkee ak yow c'est grâce à lui. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, mais fallait pas. Non, t'inquiète, il est tout à C'est juste un petit geste. En tout cas, j'aime bien. Bah, Cathy, je voulais profiter de l'occasion pour te demander une petite faveur. Bon, Idée.. tu ne mérites pas ma nek de la ganto. Tu es très gentil et sincèrement, beaucoup de dougat fof avec Tu es devenu un ami et veux aussi nous Effectivement, Cathy, nga nek sama xarit motax tax ma lay wax tout simplement nga déglu sa xol nga bëgg wax foofu kati je sais que tu l'aimes xam naa ne moom nga bëgg donc tu dois te battre pour cet amour dara wuru la ne di nga demaat bay gisaat keneen ba koy bëgg So you have to fight for this love. tas yow doo sax Man mën ngay jéem a toroxal sama digg naw lay tari xamoo lu ma lay xamal man muno ma manipuler te loolu tuuti nga ci li nga affaire amitié yi da ngay dem nga gëmloo ko golo man duma ngol golo kenn noppi ma la dégage bëgg bëggatuma la gis yow do sax nit jaroo sax xam dégage la wax